amee ñeent am. moom moo xam ko bi. ah awa day ah ah ah maa kon lu muy wax ci kii xam naa ko wax. su ma defaroon gannaaw ba yàlla ne ak yonent ba sa sañ ab doomu tubarkàlla ok tubarkàlla mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki Barcelone mbokki Espagne mbokki daayira tu Jazbul Qulub noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci gan bu màgg gii fi wàcc tey ndaka jëkk dëkk bii kër gii di kër Sëriñ Tuubaa naka njëkk ñu baax dañ fi ñëw ay wagg yu suuse ci Sëriñ Tuubaa waaye tey jii de am ngeen gan bu mat gan fa tabaarakallah jëm ji toog ci seen kanam di Cheikh Abdou Karim ibnu Cheikh Abdoul Aziz ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Abdoul Khadim Xaadim Rasul dégg ko fi barab jar na sol dellu dàll weñu di ko day ba mu xar Euh, jëmm ji joo xam ni nii rek la war a mën a mel nii mu tudd rek ni la mel muy Abdul Karim jaamu bu yàlla ngi waaye jaamu yàlla teral la ngi fa tabarakallah loolu nag war naa mën am ndax su boroom